un mandat d'arrêt contre Juan Branco. da ko sàkku woon ci ci juge bi. voilà da koo sàkku bi defu ko. voilà koo sàkku dañ ko sàkku. non non du Sénégal moo koy def. c'est-à-dire euh, euh, du du réew moo xam da ngay taxaw rek daal di déclarer ku la neex euh, persona non grata sa réew mën nga ko mais mënoo def mandat d'arrêt fu mu taxaw ñu jàpp ko. Mm-hmm. moo tax même Mauritanie li ñu def nii c'est pas normal parce que Juan Branco li nit ñi xamul mooy dafa dugg Sénégal génnaat Sénégal encore une fois dafa dugg Sénégal. wax li muy wax def li muy def defaat dafa defi pexe ba dugg Sénégal. ak complicité ñoo xam ne mais même bu amee ay complicité mais li leer daal mooy li leer daal mooy mm. dugg na Sénégal. ñëw toog ci conférence de presse. oui la mu wax au moins mat na minute mm-hmm. ci conférence de presse bi. Mm-hmm. état bu sérieux di nga taxaw yow koo xam da ngaa déclaré ci moom ne da nga def requête ci moom pour un mandat d'arrêt international. mu ñëw dugg ci réew mi même bu dee de façon frauduleuse mu ñëw toog ci conférence de presse di toog di xaar ñu jox ko ñépp gis na yegsi na. Hmm. ñu jox ko parole moo au moins lu mat quinze vingt minutes. conférence conférence bi nekk en direct conférence bi nekk en direct. Hmm. nga bàyyiwaat ko ba mu pare mu génnaat dem ba nekk ci beneen réew Mauritanie waa Mauritanie jàpp ko doog la koy jébbal. dafa mel ni dafa amoon ñoo xam ne état boobu non du affaire mel ni bala bala ñuy wax mel ni ñeneen ñi doon jébbal. non je bi est-ce que bon am na ñu naan état bi bëgg ko mais mais mais. moo tax man dama ne xwaan sax def na erreur xwaan wër woon a làqatu <laughs> bi mu duggee bi mu defee pexe ba dugg man soo ko man la waxal damaa ko ma làqatu d'ailleurs am na gun ma làqatu bu méttiwul de parce que dem na fii seeti xaw ma fu ne dem na ci dëkk bi ah. dem fu ko neex ba mu nekk xaw ma doog a génn cest à dafa ñëw lëmbe leen woon procureur de il l'a dit dans sa communication ci conférence de presse avocat yi mm. nee na ko maa ngi nii ragaluma la yow procureur u Sénégal yow ku def loolu défier la nga dem jàpp ko jàppoo ko sax beneen réew ko jàpp Mauritanie ay pêcheur jàpp ko jébbal la ko parce que même foofu xawaan je crois que mën na jàpp mën na mën na attaquer Mauritanie sur ça parce que amuñu droit mandat d'arrêt bi ñu ko jàppee parce que seen territoire la nekk mais ñoom amuñu droit jàpp ko di ko di Sénégal mais loolu c'est un autre débat ñoom bi ko jàppee andi ko Sénégal mais doon xaar kay mooy ñu tëj ko parce que. Euh, surtout que am na yeneen greffe yu bëri yu tax si loo léegi mën ñoo jàpp ab citoyen ko fi loo tax ñu lu tax euh, ñu koy bàyyi mu dem donc yow pour yow l'état dafa waroon a non a jàpp euh, euh, complexe a jàpp mais état bu faible bu complexe eu égard ak li mu wax li mu def mais loolu mooy yoon cest à jàpp ko jàpp ko samedi jàpp ko samedi hmm. yóbbu ko déféré ko dimanche libéré ko lundi libéré ko lundi mais nañ ma wax kan moo ko fi amagul mais xëy na Moustapha xëy na ci koo xam ne ci koo xam ne lañ koy toppee mooy un malfaiteur parce que ñeneen ñin jàpp muy le maire de Sangalkam muy sama avocat maître Babacar Ndiaye mais li leen jàppee mooy complicité euh, complicité euh, wala soutien wala aide de soutien à un malfaiteur euh, yow nga malfaiteur yow nan nga ci ko xam malfaiteur xam nga ñun suñu état bi lu ko yàq Momar mm-hmm. il joue avec les termes mais Momar malfaiteur du caaxaan mm-hmm. un malfaiteur nga jàpp ko samedi dimanche nga nga defeere ko lundi nga ko bàyyi ko mu ñu bonam solo ko yére daal di wutal ko valise mu ñibbi mais non il faut qu'on respecte les c'est-à-dire dugal ko avion c'est-à-dire dugal ko avion mu ñibbi moo tax dafa yegg si dafa di jubilé mais non c'est-à-dire que gis nga xoolal un bambin de rien du tout est venu montrer aux Sénégalais que yéen yoru leen état c'est ça qu'il est venu nous dire Juan Branco. il est venu nous dire. que yéen yoru leen état. yaa ngi Moustapha Diagne bu leen bokk gis. franchement mënu leen bokk gis ci loolu. mënuñoo bokk ñu xew si Juan naqari na Sénégal non non loolu. loolu signifié donc mais nag xam nga loolu la ci jàppe mooy gis nga tappale amul njariñ. gis nga dossier yëpp ñuy def autour de Ousmane Sonko. Mm-hmm. li ci nekk ci ay tappale dafa bëri ak i pexe les conseils les conseils les conseils les conseils les conseils même damay daaneel damay daaneel les conseils les conseils Macky boobu génn mhm. naan ko président Macky Sall bàyyil pexe pexe yi moo ñoom dañuy pexe ba dugal seen bopp ci kàmm dëgg la bi ñu dund léegi may ko mu wax ci Juan Branco après nag di nga tontu li tax ñu war a jàpp Juan Branco te mën nañoo jàpp Ousmane Sonko parce que bu dee wax ak kàddu rek Ousmane bon Sonko wax na lu gën a garaaw li nga xam ne moom la Juan Branco wax mais mu tontu ñu ni ñu ni ñu néewalee doole Sénégal si euh, affaire Juan Branco bi. waaw léegi pour terminer ci indépendance de la justice xam nga procureur euh, jël décision taxu mën ko appliquer parce que même jël décision remise s'oppose. Mm-hmm. kan mooy sotti le ministre mooy chef de parquet dëgg mooy ministre bi. waaw bu opposé woo. comment comment ça comment possible naka la ko mën a appliquer. ma yegg dama ne dama ne waaw waaw bon. yow c'est que yow xamoo réforme bi kon. dama naal ko waaw léegi loolu baax na baax na la réforme. baax na koy def euh, dañuy supprimer le garde des sceaux dans tous les cas. dañuy supprimer boobu moo gën a. il faut ñu am équilibre sans ñu ci dugg ñu jox la dans les détails. Euh, mu def glissement dem une affaire diplomatique Mmh. oui après on est entré dans le la diplomatie. <laughs> parce que waa ji sax il paraît ñaari nationalité la yor. ah il est franco-espagnol. voilà donc. Ah. xam nga état. qu'est-ce que ça veut nit xam nga état. la double nationalité. ba bàyyi ko mu wax daal état amul ay daal mee ko ko mu wax. c'est important état état du ruus. état du am gàcce. état du xalaat comme ñuy xalaatee du yëg comme ñuy yëg il faut ngeen comprendre. état du am état d'âme. et du am état d'âme. l'état est dans ses intérêts. <laughs> il faut que l'état est sa ses intérêts. lan moo la may wax la. lan moo arrangé réew mi loolu lay def. <laughs> non vous savez. mais loolu xam nga si loolu. Ah, xam nga boo xamul état. yeggali ma xamul état. waaw mën nga wax loo def. mais sa kër yaa ngi fay jël décision yoo xam ni. Euh, impopulaire neexu la. neexu la <laughs> neexu la. waaw say sa doom euh, tëb miir bi dem baali ñëw après. soxna si dressé wu. nga bàyyi nga reculer nga bàyyi nga wax ne dafa am ay dessous diplomatique. waaw xam nga mën a influer ci. dama ne décision bu am na femme bu ndeysaan dama fàttali tur bi am na femme bu bu ñu jàpp Arabie Saoudite. Mm-hmm. sénégalaise la. Mbaye mm-hmm. Mbaye nga depuis des années dañ ko war a exécuter non. Mm-hmm. peine boobu Sénégal bi ñu ci jàpp bañ ko exécuter. Mm. bis bu nekk ñu jële ay sénégalais yoo xam ne dañoo def délit ailleurs indi leen ci réew mi chaque jour. te bu leen fi bàyyi ñu rey leen wala ñu def prison à vie boo jàppee doomu bitim réew d' abord tu es dans un premier temps tu es dans un dans domaine de la justice mais forcément on est dans le domaine après dañuy dañuy glisser vers la diplomatie. Mm mais kon nga classé ko sans suite. donc non s'il vous plaît s'il vous te man affaire bi li ñu ko jox nii valeur bi ñu ko jox joxuma ko. waaye euh, amu ko même Branco suñ ko jàppoon fii tëj ko à vie tout ça lan lay changé ci. ci ci Sénégal ak yëpp parce que état bi mën na wax ni waa d'accord je vous le livre mais vous aussi livrez-moi tel quels les accords yi tax ñu bàyyi ko dangeen ko xam xamu leen ko parce que état mën na wax d'accord. mën na a des choses qu'on qu'on ah, mën na def di donnant donaa ma def di donnant donnant diw mi ngi fii di ma di ma saaga wala diw fii ma nga nangam diw mi yéen ko làq. léegi livrez-moi. Ah bon ça peut aller jusqu'à ce que ñu rapatrier. personne moi je vous livre. ay activistes euh, yi nekk fële di attaquer Sénégal bul xam qu'est-ce qui s'est parce que aussi ay ay négociations. mais ko a waaw c'est que c'est là où nag c'est important. non non xam parce que non mais. attends euh, euh, néew ma mais bu fekkee am na. le Sénégalais doivent savoir gis nga. Mhm. gis nga li indi guuta si yu bëri. Mhm. si état bi ni muy fonctionner. Mhm. mooy nëbbatu bi ñuy nëbbatu Sénégalais yi. les sénégalais ils sont au cœur parce que état tamit c'est constitué de population de Sénégal yu nekk bëgg a xam li xew parce que l'image du Sénégal bu fekkee dañ ko dañ ko égratigné sinon même pire par quelqu'un boo xam ne dëkku fi def li muy def dem les sénégalais ont envie de comprendre parce que c'est une question d'honneur pour le sénégalais qui vit ici également comme def nañ ko euh, Lamine Lamine Diack de la même manière c'est vrai que l'état du Sénégal a pris une décision en en gardant Massata Diack ah, fii joxuñu ko loolu moom l'état a été mais teewul Lamine Diack dañ ko jàpp ba presque muy bëgg a jeexal ñu indi ko fii de la même manière est-ce que tamit le Sénégal warul gën a wane def preuve de dignité et d'honneur et de souveraineté et de souveraineté tout à fait xam nga c'est des dossiers différents man doon naa sax ci Massata Diack mm. voilà dañ ko téye suñu doom dañ ko téye fii waaw te moo nañ ko livré dañ ko on a mm. te ñooñu rek lañ ciy xam dama xam nga le domaine de dafa nekk beneen domaine boo xam ni souvent wax du fa du fa bëri il faut aussi ngeen ngeen comprendre loolu alors pour xuwaan pour pour terminer ci xuwaan man ampleur bi ñu koy jox xam nga hmm. nit ñi parfois dañuy nekk ci loo xam ne du am benn benn importance xam nga dugg na ci réew mi mais da defe jàpp moom da ngay dem rek eh dem jàpp ko déedéet ah oui il faut que benn juge def def un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener. non il y avait déjà s'il vous plaît s'il vous jàpp noonu de. boo bala ngay jox kii da ngay yónnee préfet mandat mandat d'amener on est un samedi faut que <laughs> les juges ne pa pas le temps dem wuti kii defal ko mandat bi yu yónnee ko préfet préfet yónnee ko euh, commissaire. Hmm. pour ñu jàpp waa ji ça prend du temps mais kenn du jàpp nit ci jël téléphone rek eh, eh, eh ban police moo gën a jege dem leen ngeen jàpp ko. Hmm. ça ne se passe pas comme ça. il faut aussi ngeen xam état naka lay fonctionner. Hmm. justice naka lay fonctionner. parce que on est dans un de droit. parce que boo ko jàppee noonu ay avocat am n'importe l'avocat le le kii bii doo commence sax bu demee da koy libérer rapidement parce que les procédures n'ont pas été respectées il faut ñu comprendre loolu moo tax waa am temps wu euh, génn fi li ci des mm. yóbbu nañ ko rëbës bon pour deux quarante huit heures yooyu mat nañ ko ah, xëy na tànn nañ ko par carte ak yooyu ndax nee na yaram bi xuma lan wax na ko moom sax nee na intégré moom kay nee na yóbbaale na tooñ rek damay tooñ en tout cas yooyu mat nañ a baax s'il vous foofu yooyu mat a baax benn benn euh, soirée voilà maintenant la diplomatie a euh, na on verra plus tard qu'est-ce qui s'est mm. léegi à la lumière euh, du dossier Branco est-ce que daam waruñu jàpp au mot le ministre de la justice Ismaïla Madior Fall qui a dit deux choses première chose nee na li tax ñu mettre Juan sur euh, contrôle judiciaire mooy procureur bi dafa xam ni euh, instruction am dafa naroon a yàgg muy benn ñaareel bi itam nangu na ni euh, en matière de justice dafa am benn principe boo xam ne dafa ni euh, la détention et l'exception mm la liberté et la règle waaye léegi est-ce que ñu ko jàpp au mot jëmale ko nag ci les détenus politiques yi ñu jàpp nga xam ni mhm. jàpp nañ ñoo xam ni ay délit d'opinion lañ leen jàppe ci instruction yu gudd te ñu ngi en prison d'âme voilà merci maman xam nga ñoom toujours dañuy wax ba dugal seen bopp man ñaar ñii moom. jàpp naa ne ah, ah, ah, xam apparemment basak la lay lala rek. <laughs> dëgg dëgg dëgg non mais bu ma ko pour. Tafa euh, euh, man euh, même même bu ko lalul ma lalal ko sama parce que lal bi dafa yomb parce que ñoom erreur ñuy def dafa bëri c'est-à-dire dañuy wax ba dugal seen bopp. ci kàmb surtout ñaar ñii mooy le mise de l'intérieur. ak le ministre de la justice man dama jàpp ne président du leen suivre ci média yi. Hmm. ak ni leen sénégalais jàppee actuellement. yàlla xam na ko man dama jàpp ne président de la république du suivre Ismaïla Madior Fall ak euh, mon ami Tony euh, le ministre de la le ministre de l' vraiment boo leen dégloo ñu wax toujours bu ñu waxee wax toj toj xam nga bu ñu nee ba le ministre de l' intérieur dem assemblée taxaw naan cocktail molotov yi léegi xale yi euh, café Touba lañ ko tuddee ma defa ni moom da koy wax noonu pour saboter ndekk il était sérieux bay dem bay wax sëñ Touba ak bi mu créé Café Touba di jéem a def diabolisation ak def manipulation nga xam ne ñii xamuñu lan mooy communication cest à il communique tellement mal ñoom ñaar ñëpp boo xoolee Ismaïla Madior boo xoolee même message bi étudiants yi envoyé dem lakk parce que ñu bëri université lakk nañ ko mais fan nañ lakk sax dañoo gis ni Ismaïla Madior Fall. da nga xeeb da nga xeeb li ñu def université. xeeb moo ko de li ñu def CESTI li ñu def ci faculté dama ne c'est pour cela peut-être qu'on vous n'avez pas assez dénoncé. Euh, li nga xam ne moo xew université. fac droit. waaw nga fac droit. jeune. Hmm. néew ma lakk baax na parce que lakk benn butéel sax man d'accord ma ci. yaa may dégg loolu je l'avais dit à l'époque mais mm, fi ñu ciblé. boo ko xoolee dañoo bëgg wax un message nii Ismaïla Madior Fall plus plus que sax le régime que kii du nitu dara koo xam ni. et c'est normal ça parce que ah mais non. cest a loo xam ni loo xam ni quand même c'est la nee naa la lakk d'accord ma ci Babacar man Babacar bàyyi rek ma parce que man maa. waaw ah, d'accord waaw y allez-y su ma demee ba wax. d'accord parce kii buy wax li muy wax du bëri d'accord. Oh, d'accord mais damay bàyyi yàq émission bi rek moo tax ma koy bàyyi muy wax. mais man li ma bëgg bëgg a wax foofu mooy euh, gis nga nit da ngay am benn dayo boo xam ne da ngay respecter sa bopp gis nga Ismaïla Madior Fall mënu fi nekk jàngale université jàngal ay nit ñoo xam ne la mu leen jàngaloon da leen di wax ne dama leen doon jàngal lépp lu ma doon wax la noonu seen kanam rek waaye dara laa ci gëmul léegi maa ngi ci parce que boo demee ba naan mm-hmm. ay loi amatul ku jaay deux millions de cartes am nga droit nekk candidat xam nga yooyu c'est des choses très graves mais il l'a dit dans une naa la daggal vidéo bi wala ñu ni seetaan dag ko jox la il l'a dit dans dans dans une rencontre de l'APR ou de Benno. Mhm. moom Ismaïla Madior Fall. di pour justifier la troisième candidature de Macky à l'époque. ok c'est-à-dire que genre yooyu. ñooy taxaw di la defal ay discours yoo xam ne boo leen déggee da ngay am gàcce. c'est-à-dire aujourd'hui ce qui ce qui s'est passé avec euh, l'affaire Branco bu ñu demee ba jàpp ni effectivement noonu ko waxee loolu loolu mooy principe bi c'est-à-dire que jàpp exception la war a doon bàyyi moom moo war a nekk la règle. la règle aujourd'hui ñu am lu mat junniy nit Momar. ñu nekk ci biir kaso bi te ñu ëpp ci ñoom ils sont de Pastef junni nit ñun jàpp ci kaso yi Sénégal yi dans les différentes régions Dakar a ci ëpp la ñu ëpp ci ñoom Pastef lañ bokk ñu bëri ci ñoom ay délit d'opinion lañ tojuñu yëfi kenn yàqaluñ kenn mais nan nga mën a comprendre sëñ Assane Mbacké dugg ci otom man jour boobu maa ngi Mbacké muy meeting bi ñu interdire à Mbacké mm-hmm. ñu ngi déparé Touba ñoo jiitlante oto man man duñ koy jàpp maa ngi topp ci ginnaawam sëñ Assane Mbacké ñu mën koo jàpp ak chauffeur am ak ay ba jàppale ca étudiante ñi àndal noonu ñuy dem ci am midi moom dañ ko interdit ñu baare a jàll jàll nañ mooy ñu sësoon ci Sonko moom ñu baare ko ko ko ci kaso bi mm-hmm. alors que Juan Branco ñëw nañu ne malfaiteur la kooku sax du malfaiteur moom da dem rek ci meeting ñu jàpp ko foofu boobu léegi sëñ Assane Mbacké ñu téye ko ci kaso bi parce que tout simplement neexul neexul le ministre de l'intérieur wala ñoom ñaar jàppante nañ mais réew mi muy réewum la. léegi nooy nooy jàngatee il faut ñu respecté cest waaw jàppaate bi dafa ëpp. c'est la même chose ak Ousmane Sonko. mënoo tey jii nga ñëw depuis deux mille vingt et un ab leader boo xam ne lu mu yëkkati nga ne ko tegal. chef d'accusation bu nekk nga dem wutalik ko loo xalaat ak loo xalaatul nga nga nga nga nga sëf ko ko pour rek xe fexe wuti yoon. pour que kii nga xam ne sondage yi nee nañ bu demee deux mille vingt quatre day gagné. nga ne na nga def tout ba du bokk ci élection yi pour que deux du bokk parce que bokkoo day gagné. mais daam xam ni la ñu wax ni Ousmane Sonko moo ko wax. depuis deux maanaam ñu tuddee ko sax appel à l'insurrection pour la nee naa la sax waaw waaw waaw non d'accord loolu la ñu wax mais dama ni <laughs> li procureur bi wax. li procureur bi mm-hmm. nga xam ni woote ay nit jeune am kàddu yoo xam ni am na lu si Moustapha Diagne wax. Mhm. li nga fas yéene def président Macky Sall bu fekkee yow li nga bëgg defu ko. mais loo foofu. mais yooyu yëpp nag quand même. foofu foofu est-ce que yéen quand quand il disait ça parce que yu bëri yaa ngi toog par exemple à Kër Massar ak yëpp. est-ce que yéen aussi en ce moment là mënoon leen ne woon ne Ousmane yaa ngi franchir un Rubicon que aujourd'hui quand je crois que opposition baax na. mais am na des propos yoo xam ne on peut pas l'accepter. parce que quand même il n'est pas sans reproche on peut pas l'accepter dans ce ci tontu rapidement. gis nga Ousmane Sonko n'a jamais fait d'appel à à l'insurrection. yéen hmm. yéen wax yëpp benn du ci appel à l'insurrection xam nga lan xam nga les gens dañuy dañuy jouer sur les termes. Hmm. Ousmane Sonko li mu def boo koy qualifier. waaw des appels à la mobilisation yenn yi. yi ci des c'est des appels à la résistance. ñaar yii la Ousmane Sonko def il fait des appels. à la mobilisation surtout bu mujj bi mooy bi ñu bis bi bis bi ñu koy jàpp di prétexte woo ko dafa jàpp. Mhm. dafa dafa foqar ci téléphone gendarme bu jigéen boobu. Mhm. boo xoolee poste bi mu def il n'a pas fait un appel à l'insurrection parce que soo leen nit ñi taxaw leen fi ngeen taxaw euh, soyez vigilants mais loolu c'est pas un appel à l'insurrection xam nga mooy instruction appel à l'instruction boo leen demee kër kilifa yi. non non non di ngeen fa fekk ay milliards. dama la loolu. non non loolu loolu loolu. des jeunes sont allés jeter des cocktails molotov. dans des maisons de ministres. non non non non non loolu loolu déglu ma rek. jël cocktail molotov sànni ko si benn bis mu non non non dama la yokkal dama la indi ay contexte. dama la yooyu yëpp contexte yooyu yëpp dama la contexte yooyu yëpp c'est parce que ñoom dañuy ñëw jël benn bout de phrase par exemple soo jëlee bu ñu demee ba procureur de la république naan Ousmane Sonko dafa taxaw ni ku dee sa yaay juraat Mm, waxewu ko noonu. c'est pas vrai. waxewu ko noonu Ousmane Sonko n'a pas dit ça. Ousmane Sonko dafa rapporter des propos des jeunes. dañu yéen jeune yi c'était à Kër Massar mu ne ngeen ni yéen ku dee sa yaay juraat mais fii kenn du fi dee xale yi dem nañ sax ba ni ku dee sa yaay juraat xale yi ñoo ko wax pour woone seen détermination par rapport ak projet bi muy porté ak li mu leen. mais daam li mu leen dig may ma rek ma daaneel li mu leen dig. ak li mu li xale yi gëm ni bu Ousmane Sonko jëlee réew mi réew mi soppeeku. mais loolu na xale yi ñu ni moom jaral na leen. mais nee na te jaral boobu da leen a won ni ñoom même ñi ci war a ñàkk seen bakkan jaral na leen ko. ndaxte nit tamit. booy xeex pour sa réew doo xeex rek pour sa intérêt bopp yow. doo xeex pour les nee na pour jeexal sur ce chapitre mais nee na nee na jeunes yi dee seen waajur seen xelal na dal parce que maanaam bu ñu deewee daanaka. àjjana mais dañu xeexal seen réew loolu moo am. loolu moo am Babacar Babacar je réitère les mêmes propos loolu moo am parce que gis nga ñooñu dañoo xeex pour seen réew gis nga bu nit buy xeex réewam. day jihaad kon kay jihaad na woote non xale yooyu kenn war leen xam nga xam nga ko war a ŋaañu ko war a ŋaañu ah. mooy ñi nga xam dañoo taxaw di xeex pour seen réew am ñu leen di tiire te du am benn enquête ñuy dee te du am enquête le laa de la république seetaan ñu rey lu mat 60 gos yoo xam ne dañ doon xeex pour seen réew di jihaadal seen réew ñu xëy rey leen te amul benn enquête bu ci am. c'est ça qui est inacceptable dans un état de droit mais mais li yëpp li mu wane mooy dafa am quand même euh, désinformation euh, dafa am euh, intoxication et cetera ba ci gis nañ attentat bu fi am fii à Yarax. Mm. ministre de l'intérieur ñëw génn wax li mu wax am ay sénégalais yu ciy dute est-ce que loolu itam du gis-giseen boo xam ni vraiment. war nañ ko xoolaat parce que bu ñu demee ba lu toll noonu ministre de l' intérieur wax sénégalais yi du ci est ce que ça ne pose pas un problème. mais oui ça pose problème parce que loolu terrorisme la. Hmm. te yàgg nañu wax ni.